Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Alhamdulillaahi llazii hadaanaa lihaazaa wa maa kunnaa linahtadiya lawlaa an hadaanaa Allaah. Bokki jullit yi, bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare yéen te di ndokkil ci bis bii ah muy wax nag ci ndigalul al imam Serigne Salihou Sylla mi nga xam ni moo jiite délégation bii jóge Touba ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké du ñëw fekk fi Cheikh Makhtar Diouf moom Serigne Salihou Mbacké di ndokkeel bu baax di ko siyaare muy sunu mbokkum taalibe moom ah bu nu wooroon ci soxli di it jaral nu jóg rawatina nag bi mu nu wooyee ci Seexul Xadiim ndax moom feenu dëkk ca Touba ci Jannatul Mahwa kenn nattablewul diggam ak Serigne Saliou diggam ak Serigne Saliou ji taxawaayam bu rafet diggam ak Serigne Saliou ji doon murid saalix bu ko topp liggéeyal ko nun ñii yaroo ci ker mbaaram nu man koo séere bisub tey bii sëriñ bi jox ko kër ci sës ci mu tabax fa daara mu jërale ko muy jàngale alxuraan lu ànd ak délégation ba tey jëwriñ di sëriñ Siñaan moo daara ñooñee ay gone di fa alxuraan lu ànd ak ba tey sëriñ imaam muy jiite jàkk ji waaye ngeen gis Cheikh Béthio tabax ko ci jànnatul ma'wa Cheikh Makhtar noo ngi lay sant di la ñaanal di la ndokkeel di la xamal ni booy boo sam xel dal booy boo sow fit teen ndax ku daje ak doomi Serigne Touba mu jëlale la kër ci wetu këram nga tabax fa daara ak jàkka ñu fay mokkal alxuraan te alxuraan Serigne Touba li mooy lépp Serigne Touba nee na li mu am lépp ci alquran la ko am qiraatuha kirji wajaayi wa xissati uniltu biha kawni lada allahi sa sidqi ginnaaw loolu wéyee mu delluwaat waxaat ni alquran moom la yàlla def muy téere nga xam ni képp ko wan ginnaaw rek doo dem tey soo bëggee sa yàlla di dox sa yonent bi dox jàppal ci alquran moom la Sëriñ Saaliw mu jàpp ndax am na ay mbir yoo xam ne ku ne yow rek doo ca mën a jàpp kon yooyee na la sëñ bi tàqaleel door laa boo rek alxuraan ndax sëñ bi nee na xat saddahu an wa ashaa'un tahabbi ila zabhi razaili afaatun lazizati zanbun wa kibrun wa israarun ala lahibin hubbun li dunya ihtiwaadun lil xaliqaati كذاك الضعف يقين وهو ثالثها وسببوها بتكسير ابتداء bi yii mu nekk ak yow alxuraan la bàyyi yàlla daa coupé sa xol di ko jàng kon nag bu la sëriñ Saliou boole daara nga tabax jàkka tabax alxuraan ay gone di fa mokkale alxuraan yow sëriñ Saliou teg na la ci siraatal mustaqim siraatal mustaqim nag mooy siraatul lazi lahu siraatul lazi lahu maa fi samawaati maa fi ardi ba huwal azizul hakim kon noo ngi ñaan loolu yàgg yàlla yàlla nangul la nangul mboolem murid yi te nga yàgg ci suñu kanam donc day sant di la ñaanal di bokk ak yu bit bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf ñeen moo doon wax ci turu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou ak délégation bu mu yéen waaye monsieur Faye ñëw na quand même. d'accord dinaa ko woo léegi. maa ngi bëgg a dee ak tàngaay fii nii. waaw. monsieur Ba na nga def. metti na. xam naa da nga sonn. loolu moo tax nag ma indil la verre bi nga xamante ni moo gën ci verre yi. verre bi nga xamante ni. soo ko defee sa bâtiment du mos a tànk. te it day yaxanal énergie bi nga xamante ni moo jëm sa climatiseur verre baa ngi nii. voilà. verre bii nag moo la sonal. verre bii moom sama bâtiment bi yëpp. tollu day lëndëm dafay tàng. te am nañ mais ça ne va pas ba tey doxul. mais loolu léegi lu ci pexe. dem Mbaye frère bi nekk HLM. nañ dem. établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15.